illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilxaqi wa tawasaw bisabr mbooloo ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu moo ngi leen di nuyu nuyu jullit ak moroom di leen sant ci daje di ñu fi daje fas yéene waxtaan waxtaanu diine lillahi wa rasulihi waxtaanu lislaam bi nga xam ne moom la ñu bokk di gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ma ñaan waxtaan wi ñu tànn seen siise mu di tasawuf wa Cheikh Ahmadou Bamba maanaam tasawuf ak Serigne Touba tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jege yi ñëpp nekkul loo xam ne mën nañ koo daldi waxtaane nit jóge fee rek ak si daldi koy dégg nañu ko waxe ndax lu xaw làqu la lu jafe la lu néew la itam rawatina jamono bi ñu nekk kon bala ñuy waxtaan tasawuf dana am lu ñuy wax tamhid maanaam introduction tàmbali boo xam ne day leeral li ñuy bëgg a wax ba ku ci xamul woon dara bu ñu ko waxee nga mën a am loo ci dégg xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaane woo diine faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine mooy ciy lan fu mu jóge ak fu mu jëm lu muy jëriñ lan ko tax a jóg lan la ci nit mën a jëlee lu tax mu nekk ci kon bu dee loolu te nu gis ne diine ñetti xaaj la bu nu neexee ñu ne al wa wal wa wal ihsan bu nu neexee bu nu dee wax xamuk fànn yooyu nu ne tawxid fiq tasawuf limaan mooy gëm jullit bu ne li njëkk a war ci moom mooy wéral gëmam nan la gëm di wére loolu lañ tuddee tawxiid xam nañ ne téere yi dañu jàngale tawxiit lépp li nga xam ne mooy melow yàlla melowoo doom aadama war ko xam li jomb ci moom li dagan ci moom li war ci moom ak nin ko war a fase yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom lan moo war ci ñoom lan moo xaram ci ñoom nu jàppal leen ko malaayikaam yi noonu bu nu xamee loolu ba sunu gëm wér nu dem nag ci li ñuy wax fiq moo di atte sharia xam nañ ne iman day maanaam gëm neenu itiqaadun bil qalbi wa qawlun bil lisaani wa amalun bil jawaarixi dañ koy war a fas ci sunu xol ni yàlla bëggee nu fase ko ni wax ko sunu lamiñ ñi ba ñu déggal nu ko ñu jëfe ko suñuy cër loolu moo dajale tawxiid ak soq tasawuf ñëwagul xam nañu ne borom yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu nee ñu dana war na dogu ci amuk yàlla buur la boo xam ne kenn sàkku ko sàkkul boppam te jekkiwul jekki am tàmbaliwul fenn naka jekk fi la ko fekkoon du lott ci dara lu ko soog dong ngay daw ci nguur gi moom doo nga bind asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar arasa kursi yi lépp lu ñu bind moom moo ko fi def te kenn dimbalewu ko kenn fekku ko ca coo borom dong mooy daw ci jaam ñi nga daal gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg faaw nga gëm téere yooyu seenug am faaw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi ñii mu yónni leen ci nit ñi ak jinne yi ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul xool nañ ko am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam lañuy yu sell yu mu bind ci leeru kese duñu moy mukk yàlla duñu lekk ñu naan ñu sëy amuñu bànneex duñu mer seen tabia maanaam seen nature mooy sellal yàlla ak jaamu ko ak wéy ci ndigalam laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun gëm ne dañuy dekki bis ba nga xam ne moom la yàlla dig te wax ko ci alquran jaam yëpp dañuy dekki gëm dogal bi lépp lu am yàllaa ko dogal amul benn peppu sarra wala sab suuf wuy randu jóge ci palaasam lu néew néew te du yàlla la soob mu namm ko dogal ko gëm ne am na balance yoo xam ne ak nu mu mën a demee rek lu ñuy peese jëfi jaam ñi ëllëg la ci bis bu màgg boobale am na pom bu ñu tuddee siraat jaam ñi daañu ko jéggi yonent bi sallallahu alayhi am na mbalka mu tedd moo xam ne xeetam wi daañu ca naan ëllëg ku ca naan dootoo marati mukk ba abada àjjana am na ak safara fukk yooyu mooy tawxid teewul nag sax nit ki bu ko fasee ni ko wax xam ne yooyu yëpp am na daan nangu imaanam ne jullit la duñ ko e, mun sañuñ ko excommunier maanaam sañuñ ko génne ci biir communauté musulmane bi waaye nag li ñuy wax tabbi maanaam bidaangu fu ci kaw na mu fase yooyu bu fekkee ne nag nit ki dafa gëm yooyu te boolewu ci benn biddaa ni ki secte yi ñu tuddee dissidence yu demee ni ki mu'taziluna yi wala yu demee ni rawafid yi wala qadariyuna yi wala yenn siya yi dañ naan kii bokk na ci ahlu sunnati maanaam pas pasam rafet na wér na te amuñu dara luñ ci sikk waaye xam nañ ne loolu doyul loolu doyul pour doomu aadama bi mucc ndax bu gëmee ba noppi dafa war a jëf gëm ku nga gëm ci xolam wax ko ci làmmiñam doyul waaye xamuk loolu lañu ñu tuddee bu fekkee ne nag dikk na xam ne boppam tudd loolu ba ñu dégg ko mu nangu at yëpp di jaar ci kawam bokk ci communauté bi boobu la soog a def lislaam lii man la amoon léegi am na lislaam lislaam moo di fekk moo ko àtte mooy sharia lan la lépp loo xam ne rot na ci làmmiñu ki nga xam ne moo fi indi sharia mu di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gëmee ko noonu mu ko waxee fekk nag mooy atte mu yi ak ibadat yi muamalaat yi mooy jëflante doomu aadama yi bokk nekk ci kaw suuf seen diggante di ko atte diggante nañu war a jaayante nañu war a jëndante nañu war a defee ay contrat nañu war a atte ay société nañu war a séye nañu war a dëkke loolu yépp ba ci ibadat yi nga xam ne mooy nanu war a jaamoo na nga war a woore na nga war a jullee na nga war a joxe asaka na nga war a génne muur mu koor mooy ibaadaat yi xam-xam bi nga xam ne moo traité ñaar yooyu muamalaat ak ibaadaat ñoom lañu ñu tudde fiq mooy lislaam kon lislaam ak iman am nag wuute alquran wax na suuratu masjid qaalat al arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna sàmm si dañu ne gëm nañu ne leen gëmu leen kay da ngeen a nekk ci biir jullit ñi rek atte yi di daw ci seen kaw ngeen nangu ne jullit ngeen xam-xam boobu ñu tuddee fekk bi nga xamee mooy yéwénal jëf yi ku ko xamul say jëf du mën a rafet loolu moo tax ni mu lay jàngale na ngay jëfanteeg sa moroom doomu aadama jàngam la na ngay jaamoo sa boroom foofu rek la kon du li nga xam ne mooy amee muccub jaam bi dëgg dëgg ndax nit ci mën na julli di woor di def li julli bi ñuy def lépp te du dëgg ci moom ndax xam-xamu fiq nit koo xam ne àdduna rek la bëgg mën na koo jàng ba xam ko benn ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di àtte wala muy ubbee amaana sax bu mu wowalee xol ci nga xam ne ci la gàttañ ju xam-xamu fiq rek ci la yem bu fekkee ne nekkul koo xam ne dafa fab àllaaxiraam teg ko ci kaw àddunaam di ko xalaat fu mu toll borom xam-xam boobu nga xam ne xam ne fiq te soxla woowul tasawuf xam-xam bi mën na koo jëmee ci werantee rek ak dàggee mën na koy puukarewoo mën na ci rëy lu ci kaw jaami yàlla yi amaan sax mu defee ne loolu mu xam rek ay xam-xam beneen xam-xam nekku fu ngeen jot mi wala si ne xam